wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokki jullit yi ñuy déglu bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ah, ni nu ko baaxu woon a defe muy di leen andil xisay yonente yi tey jii nu am mbégte ci fas yéene andi ki ñuy wax abul ambiyaa yi te mooy yonente yàlla ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaye nu am yéene bala ñoo dugg ci sayiduna ibrahim alayhi salaatu wassalaam ñu def benn laltaay bu gàtt rekk laltaay bi mooy xamle lan mooy ak nubuwa ñan ñooy yonente yi ñi ñuy tuddee ay ambiyaa u ak rusul ñooy ñan ak it joxe ci ay lay lay xel yuy tekki ni loolu dafa war a mën a nekk loolu li ko sabab mooy dafa am ci falaasifa yi ñoo xam ni dañoo weddi yonent weddi seenu am ni mënta nekk moo tax war nañ ci joxewaal lay xel yuy tekki ni ñu mën a nekk lañu waaye ñu jàngale ci nubuwa lan la jagoo ana lan mooy yi ak nubuwa jago waaye ñu jàngalewaat ci it leeral ci biir tomb yi lan mooy rôle bi ak nubuwa di joué mooy lan mooy fonction bi mu war a liggéey danañ ci tudd it limu yonante yi wax it war gi nga xam ni war na ñu gëm leen ko ñun yonante yi tudd ci it mucc gi leen yàlla musal Euh, andi ci tomb boo xam ni dañ ciy wane ni yonente yi ñooy royteefi mbindeef yi danañ ci indi it seeni mujisaat loolu andi it xisa yonente yi li tax yàlla nettali ko ci alquran mooy xekk ma yi ci nekk njariñ yi ci nekk ba tax yàlla dina ko nettali leeral ci it alquran ngir mi mu jaar ci nettali xisa yonente yi doog a dugg nag ci sayiduna ibrahim mi abul ambiyaay alayhim salaatu wassalaam kon tomb bu njëkk bi liñ ciy jëkk leeral mooy ñan ñooy yonente yi yonente yi ñooy ñi sunu borom tànn ci doomu aadama yi yan leen ab wooteem ñu war koo jottuli nit ñi jamono bu ne it ñuy indaale di bëggal nit ñi ñi gëm yàlla di def lu baax danañ leen bégal ci yoolub yàlla ak payub yàlla guñ war a am fii ci àdduna jëkk àllaaxira di waaye noonu it lañuy xuppee ñi nga xam ne dañoo weddi suñu borom di def lu ñaaw xupp leen ci mbugal moo xam ni war na leen dal ëllëg ak mujj gu ñaaw fii ci àdduna loolu mooy li suñu borom wax ni wa maa nursilul mursalina illaa mubashirina wa mundirin mooy yónni wu yi ndare ngir ñuy bégle ak a xuppe fa man aamana wa aslaha fala xawfun alayhim wax na ni képp koo xam ne gëm na yonente yooyu te rafetal jëfam te mooy yéwénal jëfam ñooñu day duñu amul duñu am njàq njàqare fii ci àdduna duñu am it tiitaange ëllëg am yoo xam ne dañ koy firee ni duñ jàq ci dara ci lu ak seegul du am lenn lu ak ñu di ca tiit waaye duñu jàq yi ci lu leen raw ngir xam gu ñuy xam lépp ci loxo sunu borom la nekk te lu mu def rek ci xikma la ko teg walladina kaddabu bi ayatina yamassuhumul adabu bima kaanu yafsuquun ñi nga xam ne duñu weddi suñuy aaya mu wax ni mbugal dana leen dal ci seen kàccoore googu yi loolu kon mooy aayab alxuraan bi wax ni yónni wuñu yonente yi ndara ngir bégal jullit yi ci ab yoon ëllëg ak xupp yéefar yi ci mbugalum ëllëg yonente yi nag seen xam-xam mi ngi jóge ci sunu borom tabaraka wa taala di jaar ci seeni xel ak li ñuy tudde alxawaasul xam xamsa ci juróom juróomi yëg-yëgi doomu aadama alxawaasu nag buñ ko waxee mooy nopp am xam-xam boo xam ni ci nopp lay jaar ak gis am na xam-xam boo xam ni gis ko mooy tax nga xam ak làmbu daj am na xam-xam yoo xam ne danga koy làmbu daj ko xamee ci ne dafa nooy mbaa daa ñagas ak mos am na yoo xam-xam yoo xam ne danga koy mos xam lim saf waaye du doon lu ñuy dégg di ko wax képp ak fóon am xam yoo xam ne danga koy fóon xam xet gi kon yooyu la ñuy tuddee alxawaasul xamsa yonente yi seeni xam-xam dana jaar ci xel waaye dana jaar it ci alxawaasul sax mooy am na loo xam ne ak dégg lay doon am loo xam ne gis lay doon am loo xam ne làmbu daj lay doon am loo xam ne mos lay doon am loo xam ne banamti ko ak xeet lay waaye xam-xam bi di leen dikk ci ay xeet yu bokkul ndax am na ci yoo xam dañ koy tàbbale ci seen xel yii saa dañuy dégg ci malaayika mi mu wax direct yii saa malaayika mi day soppiku jëmmi doomu aadama yii saa xam-xam bi dana leen dikkee ci gént ci biir nelaw ak yeneen yoo xam ne nag mbiri ruu la ku dul ab yonent dafa xam parce que jaar jaar yam leen di jaar pour ñu waaye yoon woowu seen borom di jaar di leen xamal te mu wuute ak ni doomu aadama baaxoo woon a jànge moom la ñuy tuddee ak waxyu yoonu xam-xam boobu yi leen son seen borom di jaarale te mooy yebal am malaayika mu yor jëmmi doomu adama mbaa ñu wax yu leen ko mbaa ñu gént ko mbaa ñu jekk-jekki takk toqal ko ci seen xel façon xamin woo wi bokkut ak wi doomu adama yi xamoon moom la ñu tuddee ak wax yi dafa am ñu ñuy tuddee ku ñuy tuddee nabiyu am ku ñu tuddee ar rasul lan mooy xàjjale diggante an nabiyu ak ar rasul borom xam-xam ni wax ni an nubuwa mën naa yem rekk ci borom muy xam-xam bu ñu sol nit ki mu yem ci moom te kenn digalu ko mu jàllale ko kooku li ñuy tudde na bii yi saa mënees na ko sol xam-xam bi ba noppi jox ko ndigalul mu jàlle ko ci nit ñi ngir soppi doxiin wu ñuy dox melokaan yuñ mel suñ boroom bëgg ñu soppi ko ngir melokaan wu jëm fenn mu yabal ab yonent sol ko xam-xam bi jox ko ndigalul mu jànkoonteeg nit ñooñu ngir soppi jikko yooyu nekk ci ñoom teg googu mu leen teg ñu jàllale xam-xam bi ci nit ñi moom lañuy tuddee ar risala te mooy message ak yonent boroom ñu di ko tuddee rasuul kon des na ci xame ni képp ku doon rasuul rek nabi yu lay doon waaye du caageen nabi ba mu doon rasul lay doon ndax ki ñu sol xam-xam bi jox ko mu jàllale ko mooy rasul kon doon na nabi ba noppi doon doora doon mursal waaye ki nga xam nag dañ ko sol xam-xam bi képp te joxuñ ko ndigalul jàllale gi kooku la ñuy tudd nabi yu moo tax kon bépp rasul rek nabi yu la ba noppi te du caagee ne nabi yu bu ne rasul la waaye am na ñeneen nag ñoo xam dañoo wax ne ab yonent daal mooy koo xam ni dañ ko yónni nabiyu mooy koo xam ni dafa ñëw ngir saxal sharia am ñu ko jiitu woon ak jot li ko nit yi mu mel ni dañuy ñëw fekk yonent ba leen jiitu woon amoonu téere ñu jàng téere booba xam ko di ko jot li nit ñi nga xam ne dafa mel ni day taxawee taxawaayu boroom xam-xam yii di jot li dina yonent bi ak sëriñ si am na ni kooku mooy nabiyu mooy koo xam ne dañ koo digal mu jàllale si xam-xamu yonent ko jiite woon ak bu dee rasul nag mooy koo xam ne dañ ko yónni ci sharia bu bees moo indi sharia bu bees am ñeneen ñu dikk ni déedéet yonent yi ambiyaaw yi ak rasul yi benn maanaa lañu amee nabiyu mooy rasul rasul mooy nabiyu lii dafa jóge ci ar risaala lay jóge ci an naba'u te an naba'u mooy alxabar kon ñetti wax yooyu mooy wax yi ñëw ci li xàjjale diggante annabiyu ak ar rasul ci ni ko borom xam yi waxe yonente yi ak seenu mën a nekk falaasifa yi nga xam ni wàllu màdd te mooy matériel ay matérialisme matérialisme yi dañoo sulli ay lënt yu bari ci lu dem ci ak nubuwa woo dàq ko ba mu set dàq yonent yépp wax ni dañoo bëggoon a defar képp jaar ci yoon woowu wax ni yàlla leen yoon waaye kenn yoon wu leen ñoo fa yépp yam ay xalaatkat képp ni waaye loolu wër sa jaaxal kenn ndax kay nattable amuk yàlla war naa mën a nattable amuk yonent war mën a weddi ab yonent waaye nit kiy gëstu te ànd akum xelam bu xoolee dana gis ay xew-xew yu sax yoo xam ni dana ko saxalal mu ba duutu amati benn sikk ci ni ak nubuwa lu am la bu fekkee nit gëstu na dana gis ni àdduna bi bari na ay sharia ay sharia yoo xam ni ay yonente ko fi andi woon lu mel dini diine ak diine nasraan ak diine islaam ak yeneen diine yoo xam dañuy wuute ci ni ñuy tërale ak ni ñuy doxale seeni sharia waaye ñooy dëppoo ci façon gëm-gëm dëppoo ci tawxiid dëppoo ci luñ fas muy amut sunu borom tabaraka wa taala ak woote jëf ju baax ak déclaré ni am na beneen dund buy am ëllëg boo xam ni danañ ci fay nit ki lépp lu mu doon def ci lu baax fii ci àdduna mbaa mu doon ko def ci ab safaan ko yi ñett yooyu ñoo ci dëppoo ñoo dëppoo ci am pas-pas ci ni yàlla ko am la ñoo dëppoo ci di woote jëf ju baax ñoo dëppoo ci woote ni bis penc lu am la mis la boo xam ne suñu borom dina ci dajale ña jëkkoon ak mujj ñëpp ngir àtte leen ci yëpp dëppoo ñu ci loolu dëppoo googu ñu ci dëppoo te yegoo wuñ xamante wuñ complé wuñ ko war naa mën a may borom xel mu rafet ci nit lii ci suñu borom la bàyyi ko tabaaraka wa taala waaye bu dee ci tegtalu xel rek nubuwa doonut lu sori xel ndax jamono bii nu toll science trouvé na ci lenn ci ndund ndunda fi mbindeef yi ne danañ am xam-xam bu jaarewul ci alxawaasul xamsa danañ am xam-xam boo xam ne jaarewul ci ni ko nit di xame te li ñuy tuddee al ilham al ilhamul xayawaanaat boroom xam-xam yi ndundat yi dañoo wax ni xëyti ndundat yi am na ay jëf yu ñuy jëf ci gëstu seen dund liggéey seeni kër ak denc aar mooy bóof seeni nen am na xam-xam yuñ ci am yoo xam ne xel mënu ko daj kawe na ak segg ci misaal dafa am ay gunóor yu ñu tuddee nicrophore nicrophore dañ ko gëstu ba gis ne nicrophore bu nenee rek di daal di faatu ci di daal dee ci saasi bu nenee rek di daal di dee ci saasi nga xam ni du gis doomam mukk waaye gunóor boobu ñuy wax microphore jëkk muy nen dafay sonn bépp coono ci dajale ay yeneen gunóor ay xayawaanaat ay sax yoo xam ne daf koy wut teg ko ci peggu nen bi ngir doom yi nekk ci biir bu ñu génnee bu ñu génnee rek am luñ dunde te qualité sax yooyu ñëw di ko fa teg mooy mooy moom doom moom la doom yi war a dunde waaw ana moo xamal gunóor yooyu yi ni seen nen yii ay doom a ngi ci biir te doom yooyu dafa aajowoo ab dund bu génnee te lan aajowoo cib dund mooy xeetu sax wi mu wut andi ko fi lan moo leen ko xamal te loolu dafa doon lu ñu reconnaître ci diggante scientifique yi gëstu wàllu dundat yi ak gunóor yi kon loolu bu amee xel war naa nangu suñ boroom jagleel ñenn nat ci mbindeef yi ak wax yoom di leen xamal lu ko soob te jaare ko ci weneen yoon wu bokkut wii ñu xamoon tamit ko loolu daa war a mën a nekk lan mooy jagleel nubuwa nubuwa nag nga neelul suñ boroom la loo xam ne day seet ku ko neex ci ay jaamam mu jox ko ko nubuwa deesu ko ame ci am xel nubuwa deesu ko fàggu nubuwa topp yàlla gu bari du ko maye nubuwa deesu ko donn nubuwa tànn ko sunu borom la sunu borom mooy seet ku ko neex mu tànn ko allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an naas suñ boroom wax ne yàlla mooy tànn ci malaayika yi ay yonent mooy tànn ci nit ñi it ay yonent suñ boroom wax ci beneen aaya ne inna allaha astafe aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala moo tànn aadama tànn ala ibrahim waa waa kër Imran moo leen tànn ci kaw bi def defal leen ci xam-xam lu mu xamal nit ñi kon woote bi nga xam ni moom la yonente yi di taxawee du woote buy bàyyikoo rek ci seenu ñaw seen muuste du woote boo xam ni dañoo xool situation bi seenu société di dund mu naqari leen ñu xalaat ni nañ ko jéem a soppi déedéet waaye seenu bu waate ak li ñuy jëf lépp mi ngi teg ci wax yu bu jóge ci suñu borom moo tax yonente yi kenn du leen nattale mukk ak falaasifa yi mbaa nga di leen nattale ak kilifa yi adduna yi mbaa ñi nga xam ne dañoo am gis-gisu defar rekk ak intellectuel yi yonente demewul borom dafa wax ni yunazzilu almalaikata bi ruuxi min amrihi ala man yashaau min ibadihi anandiru annahu laa ilaha illa ana fattaku su borom moo wax mi dafay wàccee ay malaayika ñu andi waxyu ci ndigalam ak njub ci ndigalam di ko indi ci ku ko soob ci ay jàmm digal leen ni leen xuppe leen xupp leen nit ñi ci xamal leen amul benn yàlla bu dul man kon nañu may wattandiku te dima ragal yàlla digal na yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu waxante ak nit ñi ni leen lii ma leen di wax du caagee ni ba ma neexoon ma soppi ko wax leen qul maa yakunu liya an ubaddilahu min tilqaai nafsi in attabiu maa yuha ilay te suuratu yunus yonente bi la yàlla wax ni ko nee leen mënuma koo soppil sama bopp li may wax lu ñu ma wax lu rek laa may topp ak yonent gi yàlla doon yónni ñenn ci mbindeef yi it dafay daj kàpp mbindeef yi amul ñenn ñoom bàyyi bañ leen yónnee ay yonent ndax mbindeef yépp ay mbindeefam lañ te leen bind ngir ñu jàmm moo tax mu ne wala xad baasna fi kulli ummatin rasula na nubudu llaha wajtanibu taaxut mu ne xeet wu ne yónni naa ci ab yonant la mu leen doon wax mooy ngeen jaamu yàlla te wattandiku li yiy bewloo waaye nag fa minhum man hada llahu wa minhum man xaqat alayhi dinaa bul woote nag am na ñoo xam ne sunu borom moo leen baaxee gindi leen waaye am ñoo xam ne it nag ak réer dafa dëggu ci ñoom ana ban fonction la yonente yi di liggéey fonction mooy liggéey yi leen sunu boroom di liggéeyloo ñetti mbir rekk la ci ñetti mbir lañ koy tëgg muy wow nit ñi ci ñu gëm yàlla ak wéetal ko boobu mooy bu jëkk bi ñaareel mooy ñu woo nit ñi ci gëm bis bu mujj ba bis penc muy bis bi nga xam ni ci la suñu borom di faye nit ñi seeni jëf bu dee lu baax bu dee ab safar ñetteel bi mooy leeral sharia yi ak àtte yi nga xam ni mooy defar mooy defar nit ñi ci la taxe nit ñi nekk ci àdduna ak ci àlaxira te mooy àtte indi àtte yi ñu war di jaar ñett yi moom la yàlla yónni yonente yi ñu di ko beral nit ñi la ci jëkk mooy ñu wéetal ko ñu gëm ni yàlla ko am la te wéetal ko ci ak jaam ñaareel bi mooy ñu gëm ni am na bis boo xam ni suñ borom dina ci dajale mboolem ñu jëkkoon ak ñu mujj àtte leen lu waaye defoon mu fay ko bu dee lu baax bu dee ab sawar ñetteel ba mooy ñu wax nit ñi li dagan ci ñoom ak li araam ak àtte seen diggante ba tooñaange yi nga xam ni moo war dox seen diggante kenn fu ñu xam fa ñett yi rôle bi yonent yi doon joué limub yonente yi yonente yi ñu bari lañu am na benn xadis euh, bu ci rot buy wax ni limub ambiya yi ak rusul yi buñ leen boolee téeméeri junni la ak ñaar fukki junni ak ñeent ña ca doon ay mursaloona toll ci ñetti téeméer rek fukk ak ñett waaye alxuraan ñaar fukki yonent la tudd ak juróom yoo xam ni nit kuy gëm daf leen war a gëm ci teqantal kenn ku ne mu gëm ko ber ne gëm ko ña des mu gëm leen ci ak bëbëstal xam ne ñu yàlla yónni moo leen yónni te la mu leen wax lépp dëgg la ak lu xamu leen ñaar fukk ak juróom ñi alxuraan tudd mooy muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ni moo ci mujj tëgganti aadama idris ak nuux ak hóot ak saalix ak yonte yàlla ibrahim miñ jubloo waxtaane tey ji ak luut ak ismail ak ishaq ak yaqub ak yuusuf ak shuaib ak ayub ak dul kifl ak muusa ak haaruna ak daawuda ak suleymaan ak ilyaas ak al yasha yasa ak yunus ak zakariya ak yaxya ak isa alayhim salaatu wassalaam kon ñii ñooy ñaar fukki yonent ak juróom yi alquran tudd am na ñeneen nag ñoo xam ne kon ci alquran tudd leen waaye junju na leen ndax junj gi mooy li mu wax yonent bi ni ko wa rusulan xad xasasnaahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka wax na ko ni ko am na yonent yoo xam ni eh, net net net li naa la leen waaye am na yonent yoo xam ni nettaliwuma la leen yonent yi tolloowuñ daraja ci ngëneel dañoo gënante ni ko suñu borom waxee wala xad faddalna baada nabiina ala baad mooy am na ñu ma gënal ci ñenn yi yonent yenn yi ñoom laa gënal ci ñenn yi waaye yàlla tabaraka wa taala dafa yëkkati daraje yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci kaw mbooleem ambiyaa yi ndax daf ko yónni ci nit ñépp te yonente ya ko jiit woon ñëpp dañu daan yónni ci seeni xeet da ko suñu borom waxee wala xad baas na fii kulli ummatin rasula am na yonente yoo xam ne ci benn dëkk lañu leen mbaa ñaar dëkk mbaa seenu xeet képp ni mu waxee ni wa ilaa aadin axaahum huudan ni mu waxee ni wa ilaa samuuda axaahum saalihan ni mu waxee ni wa ilaa madyana axaahum shuayban waaye yonente bi moom daf ko wax ni ko wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi yónniwuma la ndara ngir nit ñëpp ci moom it la tëje nubuwa gi ci la ko jaaxale ba tey loolu beneen cër la mooy li suñu borom wax ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi nabiin mooy muhammad bàyyi kenn ci yéen waaye ab yonent bi yàlla la tey ki mottali nubuwa yi nubuwaati am na ci yonente yi ñu ñuy tuddee ulul azm suñ boroom ñu ngi digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar ni ko na nga muñ ni ulul azmi muñe woon ci yonente yi ulul azmi nag wax nañu ni li tax ñu tuddi leen ulul azmi te mooy boroom dogu yi mooy dañoo am dogu yu dëgër suñ boroom tudd na leen tàmbale ko ci noox juróom lañu wa min kaaf gi bamir ji mu ngi dal ci yonente bi sallallahu alayhi wa wa min wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa kon yonente bi la ak nuux ak ibrahim ak muusa ak isa yonente yi dafa war ñu gëm leen gëm yonente yi ci ponki aqida islaamiya ci la bokk ci ponki pas-pasu islaam la bokk suñu boroom wax na ci alquran ni qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismail wa isxaqa wa yaquba wa lasbaati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya annabiyuuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun waa noonu la ko suñu borom waxee fa digga jooju leen yéen nee leen gëm nañu yàlla gëm li ñu wàccee ci nun gëm lañu wàccee woon ci ibrahima ak ismail ak ishaq ak yaqub ak lasbaab te mooy sëtti yoon ci doomi yaqub ya gëm it li ñu wàccee ci Moussa ak Isa ak li ñu wàccee woon ci yonent yëpp mu jóge ci seen borom du ñu xàjjale diggante kenn ci ñoom ndax ñun ay jullit lañu képp ku weddi benn yonent mbaa mu ŋàññi benn yonente ci yonente yi sunu borom tudd ci alquran ab yéefar la weddi na li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu li ko ferdeel mooy inna alladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluuna nuuminu bi baadin wa nakfuru bi baad wa yuriduna an yattaxidu bayna dalika sabila ulaika humul kaafiruuna xaqa borom li mu wax foofu ci ay boobu mooy ñi nga xam dañoo wedd yàlla ak yonente yi bëgg a xàjjale diggante yàlla ak yonentam di wax ne danañ gëm lii weddi lee bëgg wut aw yoon wuñ doxale ci diggante ñaar yooyu ñooñu ñuy ay yëfat dëgg yonente yi suñ borom daf leen musal ci yu bari xikma bi yàlla xamuk yàlla aku xereñam lim sàkku mooy mu def yonenteem yooyu ñu gën a mat ci mbindeef yi ci bindub kaw bi ak i jikko gën a mat ci nit ñi ci leen suñu gën a mat ci nit ñi ci wàllu jikko ëpp leen xam-xam gën ci ñoom aw bokk ci ñi gën ci ñoom aw askan gën leen a dëggu ay wax gën leen a rafet am xel loolu lu suñu borom dogal ci ñoom la ndax xikmaam loolu la laaj xereñu suñ boroom def na yonente yi ñooy ñi gën a mat ci mbindeef ci bind gën leen a mat ci ay jikko ëpp leen xam-xam gën leen tedd aw askan gën leen a dëggu ay wax gën leen a rafet am xel waaye noonu la leen seen boroom aare ci ayib bi yaramit bépp bépp tawat buy tax nit ñi di leen foñ lu mel ni di leen daw nit ñi di leen daw lu mel ni ngaana wala siti ak yeneen yu ni demee loolu lépp suñu borom dañ ci musal ndax li tax njariñ li tax suñu borom yónni yonente yi mooy bëgg ñu gindi nit ñi te gindee mënta am ci lu dul ngay jaxasoo nit ñi te jaxasoo mënta am ànd ak nga am tawat yu tax nit ñi di la daw kon moo tax suñu borom aar leen ci yooyu yëpp sàmmal leen boppam jub jubbantil leen boppam suñu borom wax na yonente bi ci alquran ni ko wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina mooy na nga muñ ci te nangu sa àtte borom bi ndax yaa yaa ngi ci suñu càmb mooy nu ngi lay gis waxoon Muusa ni ko wali na ala ayni suñ boroom moo leen yaral boppam moo leen aar ba ñu tàbbi ci ay bàkkaar ay mooy yàlla yi duñ ci dugg moo tax yonente yi dundaluñu woon seen bopp waaye dañu daan dund di ay misaal yoo xam ni dañuy royee ci ñoom ginnaaw buñ fi jógee it yoon yañ jaaroon ak fàttaliku gën leen di fàttaliku gannaaw buñ fi jógee di doon ay làmp yoo xam ne dafay leeral nit ñi lëndëm lëndëmi dund yi ñu dund lëndëm lëndëmi adduna bi ñu nekk di leen leeral yoon yooni njub yi kon yonante yi ñooy ñi jub tegu ci aw yoon suñ borom digal ñu roy leen lu wax ci aaya bii ne ulaayika alladina aataynaahumul kitaaba wal xukma wan nubuwa fa in bi kaafirin ulaayika alladina hada hada allahu fa bi hudeehu muqtadih ni ci surat lanam ni ñi nga xam ni dama leen jox sama téere jox leen sama àtte jox leen ak nubuwa yéefari màkk yii bu ñu weddee it danaa def ay nit ñoo xam ni wéer naa leen ñu jafandu ci yonente yooyu jàpp leen te duñu leen weddi yooyu yi ñooy ñi nga xam ni yàlla moo leen jubal daal ni bi seenu njub na nga roy waaye bu ko waxee yonente bi xeet yépp la jubla wax dañoo war a roy seenu njub yonente yi dañoo nekkoon ci yamukaayu topp yàlla nekk ci yamukaayu jaamu yàlla nekk cëb njabaxtanul def lu baax wa jaalnaahum aimmatan yahduuna bi amrina suñu borom nee dama leen def ñu doon ay njiit yoo xam ni dañuy jub ci suñu ndigal waaw xay naa ilayhim fi alal xayraati nee na wax yu leen ñuy def lu baax wa iqaami salaati wa itaaya zaka wa kaanu lana def lu baax taxawal julli di joxe asaka te nun lañu daan jàmm daan ñu jàmm yonent yépp yàlla dàq na ci ñoom wor wax na ne wa maa kaana li nabiin an yu an la wala an yu xalla am nañu jàng an yaxulla mel ni kon wor yi la dàq ci ñoom muy amul benn yonent boo xam ni dana wor alquran dafay wuute ak biibal bi ci ni mu gise yonent yi ndax biibal bi ci ancien testament bi dafay melal lenn ci yonent yi ci ay naxe kan manam ak war di leen tuumaali toggoo lenn ci bakkaar yu mag yi ndax boo demee ca biibal ba wala ahdul xadim muy ancien testament danga gis ni mu ngay tuumaal Yaquba ay wor tuumaal na fa Luut ne dafa njaaloo woon ak ñaari doom yu jigéen mu nga fay waxit it ni Haaruna dafa woo nit ñi ci ñu jaamu nag wa Daawuda mu wax ni dafa njaaloo ak soxna kole nelam boobu mooy Uriya Suleymaan mu wax ni jaamu woon na xiram ba ngir sàkku ngërëmul soxna waaye alxuraan moom buñ xoolee nettali nañu xisa yonent yooyu yépp waaye amul benn bu dëggal ci yooyu yi nga xam ni moom la biibal bi taqal ci yonent yi ambiyaa yi ci gis-gisu islaam dañ leen musal ci bàkkaar yu mag yépp dëgg la nag benn benn ci njuumte mën naa amee ci am bàyyi ko ci kenn ci ñoom mën naa bàyyi ko ci kenn ci ñoom ñu di leen ci yedd waaye nag njomte yooyu de it du àgg ci wàllu pas-pas du àgg ci wàllu jikko ju yàqu ba ci yonente yi sax danañ gise seen bopp ni dañoo gàttañ lu ci àq yàlla ngir la ko waral mooy dañoo xam ñu gën a xam nit ñi fañ war teg yàlla ñu gën a xam nit ñi réyug yàlla ak màggaayam moo tax ñuy jéggal lu jamono bu ne ci seenu gàttañlu waaye du càggee ni bàkkaar bu ñu def la seenu jéggalu du caagee ne bàkkaar bu ñu def la waaye dañuy jàpp ne dañoo gàttañ lu ci àq su borom ambiyaa yi ñooy roy tee fi mbindeef la waral mooy melokaan yooyu bi mu nekkee ci ñoom ñu toll noonu ñu toll ci ak jaamu yàlla ak sori bànneexu bakkan ak sori ay mooy yàlla loolu yi moo waral suñu borom digal nu ñu roy leen di dox ci seenu doxin di leen jéem a niiru niirule sunu kenn suñu kam kàttan yàlla tabaaraka wa taala dafa wax ni ulaika alladina hada llahu fa bi hudeehu muqtadi naka noonu kon loolu dafa mel ni bi muy wax yonente bi la waxal noonu yi waaye am na beneen aaya bu mu wax diggal jullit ñu roy ci yonante bi sa alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana loolu li muy daal di tekki mooy yonente yi ñooy roytee fi mbindeef yàlla dafa nettali yonente bi xissa yonente yu jëkk ya ni ko ñooñee la yàlla jubal na nga roy seen jub ba noppi nag jullit yi mu digal leen ni leen yonente bii na ngeen koy roy yonente yi am lu ñu ay ay muxjisaat te mooy ay kaawteef yu ñu daan feeñal yàlla moo daan dëgëral ay yonenteem ci ay kaawteef ci ay kiimaan yoo xam ni xeli nit ñi tàmmuñu ko waaye la tax mu di leen ko dëgërale mooy bëgg a saxalal nit ñi ni ñii wax nañu dëgg moom la sëriñ bi wax ca tazawudu sigaar ni amma ala sidqihim dalilu fa mujizatun anzala aljalilu makaana qawlillahi jalla sadaqa abdiya da fi ma saa aw nataqa sëriñ mi ngi wax ni liy tegtale seenu dëggu mooy kaawteef yi suñ borom di wàccee ca béréb ba mu waroon a taxaw di wax ni sama jàmm bii lu mu wax dëgg la lu mu def dëgg la béréb ba suñ borom waroon a wàccee di fi waxee loolu yi ca lay wàccee kaawteef yooyu ngir xam ne ni moo leen yónni mujisa buñ ko waxee mbir lay doon mu xar baax moo xam ne yàlla daf koy jaarale ci loxol kuy woote ni ab yonent la ba noppi nag lëkkale koog nag bàkku ci kaw nit ñi ci ni leen ku man defal ku mën na def sa te mooy teef yooyu yàlla daan jaarale ci loxol yonent yi nag bokkut ak karaama karaama bi muy jaarale ci loxol wali yooyu am na ay mbir yoo xam ne dafay xar baax sun borom di ko jaarale ci loxo lenn ci nit ñu baax ñi waaye nag du lëkkaloo ak woote ak nubuwa loolu ñu ngi koy wooye karaama kom ni mu amee woon ci sayidatuna Maryam ndax ci ab jullikaayam la daan gis rekk furwe ji war a am ci jamono yi cooroon mu koy gis ci jamono yi sedd bu ko fay ñëwal ci jamono sedd fure yoo xam ni jamono sedd la war a ñor bu jamono cooroonee moom mu am ko loolu karaamale bu ko suñu borom defal naka noonu ginnaaw bu matoo xiif suñu borom daf koo digal ëkku tàndarama gu fa nekkoon mu ne ko na nga ko gësam ba nga ko gësamee ba ko laalee rek ay tàndarama ju tooy wadde ca loolu ba tey euh, lu xar baax la waaye loxo yim jaare doonul ko wootee ak yonent moo tax loolu karaama yi ko tudde mooy karaamaat la awliyaa mujisa ba tey bokkut ak njabar ndax du jaar ci ay xam-xam yuñ xam yoo xam ne boo ko defee nangam amee ci résultat sangam am ci ak njabar day doon lu ñuy jàng mu doon ay jëf ak i wax yoo xam ne buñ la ko jàngalee ne la boo jaaree fii résultat sangam dana am xar baax googu yi sunu borom di defal yonente yi mbaa mu di leen ko defal wàll mbaa mu di ko defal wàllu yoon du doon luy jaar ci ay xam-xam yu ñuy jàng di ko def ndax bu dee ak njabar dafa am ay sabab am ay ponk yu ñu koy teg loo xam ni comme neex mën nga koo jàng bu ko defee njabar googu nag di wone lu xar baax loo xam ni dana wuuteeg li nit ñu xamal waaye wuute na ak ak mu'jiza wuute na ak karamatul awliya moo ji mujisa yonente yi mujisaati yonente yi ay xeet la am na ci ay saat yoo xam ni eh, day mel ni balluk ndox ndox mu bal ci aw doj day mel ni suñu borom daf ko bind dafa dafa dal di eh, joxe digal ci nangam am ndox mu balle ci aw doj benn Muusaa bi aw nitam sàkkoo ci moom ndox dafa fab aw yatam dóor ko ci doj wi mu génne ndox naka noonu niir wi suñu borom digaloon muy keral bani Israil ba tey ci xeeti mujisa la bokk mujisa yonte Yàlla Muusaa la naka noonu xar gi mu ko xaraloon géej gi nga xam dafa dóor aw yatam ci géej gi mu mel ni dafa xar ñaar ndox mi fàkku bañ am yoon muñ jaar jàll loolu ba tey ci xeeti mujisa yi suñu la bokk am na ci mujisa xibaar lu ak séegut lu mel ni Isaa daana wax aw nitam li ñuy lekk ak lañ denc ci seen biir néeg mu leen ko leeral te gisu ko loolu aaxiru xaybu la suñu borom xamal ko ko loolu ci mujisa la bokk am na ci it loo xam ne dafay wuute ak loi naturelle yi yi ñu xamoon ci nature muy safara li ci xamoon mooy kooku laal mu lakk la suñ boroom defal Ibrahima safara wa mu doon ab sedd mu soppi nature bi loolu ci moo jisaati yonente yi la bokk waaye mu mel ni xikma suñ boroom ni mu daan doxee mooy yonente bu ne sa moo sax te mooy sa xar baax nga ngay génnee ngir lott lottaleku nit ñi ak ngir ñu xam ne yàlla la ni dafa daan dëppoo ak li siiw ci e, nit ñi ngay dund société bi ngay dund lu mel ne Isa mu'jisaam mi ngi gën a feeñe ci dekkal ku deewoon bu yàgg ngir boobu yahood yi dañ daan weddi ruux mu'jisab Muusa feeñ ci aw yat mu sànni ko mu soppi ku jaan wann yat ya nga xam ne moom la njabarkat ya sànni woon ak seeni buum la ko waral mooy njabar booba jamono booba eh, waa Égypte waa Misr dañoo doon ñu ñaw ci wàllum njabar mu indi qualité bu mel ni ba ñuy def ba noppi nag mu doon dëgg goo xam ne danañ ci xam ne lii bokkut ak ñu doon def ñoom kon day mel ni suñu borom day seet jamono bu ne yon bi lan la ay nitam gëm mu doon da leen gën a yéem moo gisab yonente ba day ñëw kawe leen ca ba duñ ko séen ba ba duñ seen pëndam ñu xamante ni ñu xamee ca ne kon lii lii muy wax dëgg la yàllaa ko yéen alquran mooy muxjisa bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam wala boog bi gën a rëy bi gën a rëy ci ay muxjisaatam waaw ndax arab yi eh, bi yonent bi ñëw waaw fekk ñu gëmoon lool fasaaxa gëm lool balaaxa gëm lool ak mën a wax wax bi neex ba daan daje ci marché bi ñuy wax Ocass kenn ku ne di feeñal sa raw ci fànn googu waaye yàlla jaarale mujisab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu indi alquran mu ëpp leen fasaaxa ëpp leen balaaxa baat yu gàtt mu mën cee leer loo xam ne ko doon leeral bootul ay tër yi gudd gudd ci lañ koy wax ba noppi nag mu bàkku ci seen kaw ni leen benn saar bu ñu mel képp bu ñu ko indi leen xul faatu bi suurati misli te teewut nag xeeti mojisa yi yonente yi daan def lépp it jaar na ci wone ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ndox bale na ci ay baaraamam lim bu bu baree baree bari daan leen reggal ci ñam wu néew loolu am na ay yoon yoon ci histoire am na ay xew-xew yu nekk ci kanam ak ségutit lu ci bari mu deklaare ko leerale ko noo xam ne bañ demee ba àgg ci dañ ko dañ caa teg bët danañ ko waxee kon mënees na ne alxuraan mooy mujisa bi gën a rëy ci ay mujisaatam waaye nag xeeti mujisaat yi yonente yi daan def yëpp yëpp lu ci ne feeñ na ci ay loxoom moom yonent bi sallallahu alayhi kon ñu indi xisa yonente yi ak xikma yi tax suñ boroom nettali ko boroom xam dañuy wax ni suñ boroom dafa nettali yonente bi xibaar yi ñu jàlloon ci yonente yi ak xeet ya wéyoon ngir juróomi mbir mbir juróomi xikma tax mu nettali ko ba ci jëkk mooy ngir feeñal ak yonentam ak tegtale ne moom mii yàllaa ko yónni ndax yonente bi ab ummi yu la daawuñu ko gis muy dem ci benn boroom xam-xam ci yahudi mbaa nasraan yi daawuñu ko gis muy seeti kenn ci ahlul kitaab kon bu indee xissa yonente yu jëkk ya ñu xool ko mu tombe ak nañu ko xame woon wala boog lu lu ci tombi ak moom it la gën a wér la indi loolu day tegtale ne ak wax wi la gu bàyyi ko ci sunu boroom ni mu leen ko waxee moo tax suñu boroom wàccee aaya di weddi ña ko doon tuumaal di wax ne asaatirul awwalin nag tatabaha wax ne ah lii di caaxaani way jiitu ya way jëkk yàlla rek léegi daf ko bind fexe ba di ko natt dañ ko koy dañ ko koy jàngal tubaab ngoon waaye suñu boroom weddi seen wax jooju ne qul anzalahu alladi yalamu sirra fi samawati wal ard nee leen yàlla min xam la feeñe la nëbbu ci asamaan ak suuf moo wàcce xam-xam bi ci man kon xikma bu njëkk bi mooy feeñal yoon nubuwa ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi ci ni ko borom xam-xam waxee ci juróomi xikma yiñ wax ni moo tax alxu euh, alxuraan euh, xis yàlla di nettali xisse yonente yi yonente bi sallallahu alayhi wa ñaareelu xikma bi mooy ngir loolu mu doon roy royteef ci moom mu doon royteef ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu roy jikko yu rafet yi yonente yi daan jaar ci ni ko ni ko ko yàlla nettalee tagg leen ca naka noonu xeetam wii yit man cee waaroo ba xeet yu njëkk ya fañ jaaroon ba alkene fekk leen ca ñu mën ko moytu loolu kon mooy ñaareelu njariñ bi tax yàlla nettali yonente bi xisa yonente yi jëkkoon ñetteel bi sunu borom dafa nettali yonente bi xisa yonente yi ngir ngir dalale ko xelam ak won ko nga jëm ko defal defal ko aw xeetam ak won ko ni mu yëkkatee seeni daraja ci daraja yonente yi jiitu woon loolu mooy yonente bi bu xoolee xibaar yi yone xeet yi jiitu woon dana xam ni yàlla musal na ko ci lu bari lu mu tegoon ay yonent ci ay tartar ak jafe-jafe waaye dina xam aw xee tamit danañ xam ni yàlla musal na leen ci diis diis yu bari yu mu tegoon xeeti yonent yi jëkkoon yu mu tegoon xeeti yonent yi yi jiitoon yonent bi sax moo tax am nañ lenn ci mufassiroona yi ñoo xam ne aaya bi wax ne wa asbaga aleykum niamahu zahiratan wa batina suñ boroom sëmbërtal na ci yéen ay xéewalam ci zahir ak batin ñoom dañ koy tafsire ni an ni'matu zahira xéewal bu feeñ bi mooy woyefal gi mu leen woyefalal euh, yan yi sharia yi waaye al batina xéewal bu nëbb bi mooy ful gi mu leen fulal yool yi lim leen teg woyof na te lim leen di fay ci am yoon gis na ndax benn boo def ñu fay la fukk am na sax def-def yoo xam ne boo defee benn dañ la fay ba juróom-ñaar tamit masalu alladina yunfiquuna amwalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat sabaa sanabila fi kulli sumbulatin miatu habba xikma bu ñeenteel bi ñu wax ne sunu borom dafa nettali yonente bi xisa yonente ya ngir jublu koo yar jublu yar xeet wi jubloo yar aw xeetam ndax bu tuddee yonente yi ak seen yoon dana leen ci soññi soññi leen ci jëf ju mel ni dañ daan jëf bu tuddee noonu yàlla yi ak seen mbugal it dana leen ko moytandikuloo moytandiku leen ñu def lu mel la ñu ñu def kon loolu façon yàlla yar mooy nga nettali nit ki ni ko nangam amoon na fii lii moo ko ca fekkoon ci aw yiw na nga ci góorgóorlu maa nangam bii kat amoon na lii moo leen di fekkoon ci ab safaan nangeen ngeen ko moytu loolu daa bokk ci xeeti yarin yi nga xam ni yàlla daf koy nettali yonent bi ngir yare ko xeet wi moo tax mun laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab wa kullan naxusu alayka min anbaai rusul ma nusabbitu bihi fuaadak kon juróomeelu xikma bi ñu wax ci ni yàlla dafa nettali yonent bi xisa yi yonent yee ko jiitu woon ngir dundal seenu tur ak dundal seeni jaaxit ngir sunu boroom day def lu baax boo ko defee balaa payu ëllëg gi ñëw dana la wan fii lu bokk ca pay ga ba nga mën a tàmbalee sant sa xel dal ci li nga nekkoon kon desal gi muy desal seeni tur ci àdduna ñu di leen fàttaliku bañ leen a fàtte desal fi seeni jeexit ba bis penc loolu ci gaawee ak pay la bokk te yonent yàlla ibrahim amoon na xewanteef ci loolu yi ba ñaanoon ni wajaal li lisaana sidqin fil aaxirin mooy nag ma defal làmmiñu dëgg ci mujj yi loolu ñu koy firee ni mooy aw turam des fi ci àdduna juróom yooyu eh, ci gàttal eh, moom la boroom xam-xam wax ni moo tax suñ boroom di nett li xisa yonent yi ci alxuraan feeñal nubuwa yonent bi sallallahu alayhi wa ak mu mën a roy ci ñoom aw xeetam mën a roy ci jëf yu baax ya fi jiitu woon dalal am xelam moom yonent bi sallallahu alayhi wa ngir daraja ak yëkkati gi ñu yëkkati darajaam ci kaw ñu bari ci yonente yi jot coono yi leen tegoon teguñ ko ko te li ñu koy fay ci aw yiw moo ëpp li leen daan fay ak nag yar nit ñi ci ñu roy lañu baax ñu jëkk ñu daan def ak moytu lañu bon ñu jëkk ñu daan ak nag bàyyi fi seen tur ñu di leen fàtte juróom ñu xëkk ma yooyu ñu wax moo tax suñu borom di nett li xissa yi bi ci alxuraan waaye njër mi alxuraan di jaare nett li xissa nett li xissa yonante yi alxuraan buy nett li xissa yonante yi walla xise ñeneen ñu dul yonante yi danañ gis ni day indi xissa bi ci matièru taarix ak xew-xewu taarix waaye nag daf koy indi indin woo xam ni indinu adab lay doon te mooy dafay leeral maxnaa yi ba noppi nag la ko tax a jóg la tax muy nettali xissa bi mu dëgëral lool waskun fil kitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiyya waskun fil kitaabi ismaila innahu kaana saalixal waxti wa kaana rasulan nabiyya la ko ci ñor rek danaan cuqit nettali ko bu fekkee ñu jubloo xuppale ci dara day nettali xese bi waaye nag day fab la ko tax jóg la ko gën a ñor mu dëgëral loola jóg nit ñi mën ko bàyyi xel bu baax a baax waaye du càggee ni day nettali day nettali xissa comme ni nettalikatu taarix di nettalee histoire tàmbalee ci diw doomu diw ak diw jaar na bopp sàng jaar na bopp sàng jaar na fii def na lii def na daa déedéet day seet lu daan cuqet béréb bi muy waxee la ko ñor mu jox leen ci exemple mu indi ab yonente ne jaar na bopp sàng defar na nangam fii lañ mujj kon noonu lay nettalee waaye bokkut ak nettalikatu taarix buy tàmbalee ci bopp ba rek ba ca mujj loolu moo waral sax lenn ci mustashrixoona yi di indi ay lënt ci naan alxuraan moom kenn mu mënu ci dégg xisa bi boo ko yarewul feneen ndax xisa bi ko indi lépp day andi tuuti rek daal di bàyyi waaye fekk ne dafa ñëwul ngir nettali ay xisa xet nettali taarix da ko taxut a jóg waaye xisa bi daf koy nettali ngir ñu mën caa jëlee ak waaru ak ngir ñu mën caa jànge boo fee béréb bañ mën a jànge nu mu rek loolu la yem te teewul nag am na ci sax benn benn xese alxuraan yoo xam ni daf koo nettali nettali gu mat sëkk tàmbale ko ca bopp ba ba ci tet la ñu jokkoo dara dëggu ci ba ni mu àggee comme ni mu nekkee ni ñu ko gisee ci saaru yuusuf waaye lu ëpp ci li muy nettali nag day indi rek lenn xissa bi ndax lenn loolu li muy indi na mu toll la la ko ci ñor dikk na ci dana ca fekk dana dana ca mën a dana ca mën a day juñu xissa bi junj koo xam ne doy na walis nga koy guddal ngir xam ni jàngale woon na ko jëkk xisa bi xam nañ loolu da gis jamono bu na borom xam ne di jëfe noonu wax bi daal comme ni ko xamee yem foofu waaye bu ñuy leer daal dañuy wax ni alxuraan nett li u taarix taxu ko jóg waaye ay waaraate ak nit ñi xalame ci ak mooy too ci ak mooy yàlla ak euh, roye ci nit ñu baax ña doon jëf jëf ju baax ba am ngërëm yàlla loolu yi moo ko ñor ci xissa bi kon loolu yi ko ñor muy njàngale mi ak nit ñi mën cee waaroo nit ñi mën cee jëlee ay xalam nit ñi mën cee moytandikoo ak mooy yàlla moo tax ci sama biirum nettali danaa ci bëgg di def xisab yonente bu jeex e, ma indi ay bind yuñ ci mën a jàng ci déggin yi ci borom xam-xam yi dégg nag ak leneen lu ma ci mën a dolli ci sama dégginu bopp te bàyyi nit ñi it nag ñu seet seen dégginu bopp ñoom tam lañ ci mën a dolli waaye xisa yi loolu ko tax a jóg su ma noppee it téere yi ma gën a sukkandikoo danaa ko tudd ngir ku bëgg a dolli ko xam-xam mbaa nga bëgg ko yërali sa bopp nga mën caa dem tey jii nag ci njëlbeenuk weeru tabaski wii di ci mujjuk mujj ci atum gàddaay gi 1429 tolloog fukkeelu weer ak benn muy novembre ci 2009 ñu tànn xisab bàyyu yonente yi di ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salaatu wa taslim ngir nettali ko ibrahim alayhi salaam dafa doon ko am ab cër ci ñetti diine yépp mu yahudi ak nasraan yi ak waa diine islaam mu doon jëmm joo xam ne aw turam toujours suñu ko tuddee day lëkkaloo ak teraanga ak ñaanal ko ak màggal ko ibrahim mi ngi bokk ci ulul azmi min ar rusul ibrahim dafa jihaat ci yoonu woote yàlla woo nit ñi ci jaamu yàlla ak wéetal yàlla ibrahim dafa doon koo xam ni dafa exposé woon bakkanam ci alkane ngir bëgg pas-pas nit ñi am pas-pas ci suñu borom ibrahim dundam bépp dundam bépp ak càllala la ci ay walante ngir jëm yàlla moo tax jëfam jooji misaal muy dox ba faw la ci mbooleem xeet yi ñëw ci ginnaawam ci ñu xam ni royteef la ci sellal royteef la ci jeex tàkk ci bëgg yàlla ibrahim moom lañuy tuddee abul ambiya mooy bàyyu yonente yi bépp téere bu wàcc ci téere bu wàcc ci benn yonent ci yonente yi ginnaaw ibrahim rek yonente boobu ci sëti Ibrahim la bokk ci ay nitam la bokk ci ak njabootam la bokk Ibrahim mi ngi am ñaari doom ñoo xam ne suñu borom da leen tànn def leen ay yonent muy Ismail ak Ishaq Ismail mooy maami yonente bi sallallahu alayhi wa mooy maami arabi Hijaas Hijaas yële mooy maami arabi xijaaz ngir askanu uh, arabi xijaaz yooyu buñ ko toppee mu ngi dellu ci ñaari doomi ismail muy naabit ak qaydar alquran junj na baayug ibrahim baay gi uh, ibrahima doon baayu arab yi ñuy wax ak jullit yi ni leen wa ma jaala aleykum fi diini min xaraji millata abikum ibrahim huwa sammaakumul muslimina min qabl kon bàyyi gim doon gim doon bàyyu arab yi aaya boobu junj na ko ishaq moom mi ngi bàyyi ko ci doomu oh, ishaq doomu yonte al ibrahim la moom Sarra moo ko jur soxnaam suñuy wax Sarra Isxaqa moom yi moo jur Yaxuub Yaxuub moom lañuy dàkkentale Israil Israil moom yi muy Yaxuub moom lañuy askanale mboolem giiri bani Israil yi te giir yooyu ñu bari ci ay yonent ci lañ bàyyi ko ñu jeexee ci Isa ibnu Maryama alayhi te isa mooy ki waxoon ni ko injil di nettalee moo waxoon ña ko topp ni leen seen baay ibrahim day dana tiitaroo doon am yaakaar gis sama bis bii tey te gis na ko ba am ci métti sama taxawaay bii doon na ko tiitaroo doon na ko yaakaar te gis na ko tey ba am ci alquran ba tey junj na bàyyug ibrahima gi mu doon bàyyu yonent yépp yonent yu bari yonent yi ñëw gannaawam ni mu doon seen bàyyi alquran junj na ko ndax wax na ci benn aaya ni wa wahabna lahu isxaaqa wa yaxquba kullan hadayna wa nuuxan hadayna min qablu wa min durriyatihi wa suleymaana wa ayuba wa yuusuf wa muusa wa haaruna wa kadalika najzil muhsinin wa zakariyaa wa yaxya wa isa wa ilyaasa kullu min asaalihin wa ismaila wa yasa wa yunusa luuta wa kullan faddalna ala alaalamin tuleel tuddaal na ci lóot doomi mbokkum ibrahima waaye euh, notal euh, doom moo tax ñu dugalaale ko ci biir kon yax boobu danañ ci xame ni ibrahim mooy maam yahud yi ak nasraan yi ak jullit yi danañ ci xame ni yonente ñetti diine yi yépp yët danañu daje ci wenn askan kon ñoom ñoo bokk benn cosaan ñoo bokk benn dayo bu ñu dox jëm dayo ba mooy jaamu yàlla te wéetal ko alquran suñu borom wax na ci alquran ni wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhi annahu laa ilaha illa ana fa'budun kan mooy ibrahim ibrahim ibnu taarix ibnu naaxuur ibnu saaruux ibnu arxu ibnu faalix bin aabir bun saalix bun faynaan bun arfaxshad bun saam ibn nuux askan woowu dëppoo nañu ci euh, ci diggante ibnu kasir moom la tudd ca albidaaya wa nihaaya moom la assaalabi yu tudd ci xisasul ambiya ba ñuy tudde al arais ànd ak lu néew ci ak wóote nag lu ci am ndax euh, kii bind arraxoo boo demee ci Ibnu moom mi ngi bind raaxoo saalix la la bi bind nga dem ci Ibnu bind saalix waaye daanaka lu ci dul loolu ñoo ko dëppoo Ibnu li bind mooy lii mooy yax bi ahlul kitaab bind ci seeni téere bi saalabiyu wax ci ni turu baayu ibrahim bi ko baayam tuddewoon mooy taarix waaye bi mu àndeek namruus ibnu kanaan yoral ko eh, jaamu haykal bi ñuy jaamu seen yàlla yooyu boobu la ko tuddee azar ibnu isxaqa ni azara aw as aw aw dàkkente la woo xam dañ ko ko jubloo ayibale li muy tekki mooy mu wajj mooy ku jàng boroom xam-xam yi wóoti nañ ci béréb bi ibrahima juddoo waaye ibnu kasir li mu wéral ci albidaaya wa nihaaya mooy ni mi ngi juddoo ci suufus kaldaani yoone yi te mooy suufus baabil afif abdul fattah tabbaara ci mahal ambiyaay fil quran wax na ni dëkk bu ñuy wax óor alkaldaniya mooy laltaayu juddug juddug ibrahim yenn jamono bi ñu toll nii moom la ñuy wooye Moghir nee na dëkk boobu mi ngi nag ci diggante euh, dexuk déj la ak Furaat ci benn benn genn joor jëm ci wetu ndijoor wax na ni ginnaaw Ibrahima juddoo foofu nag defar laxas ànd ak way juram ñu dem fa ñu wax xaaraan am ñu wax xaraan ca suufus kashdaani yoon yi kon ma nga woon iraq jóge fa dem xaaraan ca dimashq muy saam foofu la bàyyam faatoo gannaaw bi la départ saam googu te mooy dimashq googu dem ca suufus kanaani yoon ya ci réew yi baytal maqdis kon tukki yooyu yëpp Ibrahima tukki na ko demoon na it Égypte Iraq la dëkk fa la juddoo dem na Dimashq jóge na fa dem Palestine dem na it Misr loolu kon moo sax ci tukki yonte al Ibrahim alayhi waaye ñu bari ci borom xam-xam yi saxal nañ ni Ibrahim mi ngi juddu ci jamonoy Namruus ibnu Kanaan diggante mag wàllum nooxit ma toofaan ma diggante wal ma ak juddug Ibrahim alayhi salaam mat na 1263 ci ay at junne ñaar téeméer e, ci at dox diggante e, wàllum nooxit moom mi nga xam ne nag ci jamonoy nguuram ci ak moomeelam ci la Ibrahima juddu kenn la ci ñeent buur yi masa moom suuf am na ci xadis yante bi wax ni suuf sépp sépp sépp ñeent ko masa moom ñeent ñoom ñoom la seen nguur masa daj masa daj àdduna bépp ñaar ñi ay jullit lañu ñaar ñi ay yéefar lañu ñaari jullit yi masa moom àdduna sépp ba mu daj mooy suleymaan ibnu daawud ak dul qarnayni ñaari yéefar yi seenu nguur mas daj àdduna nga xam ne ñoom moomoon yilifoon lépp mooy namruus ak buxtanassar namruus mooy ki jëkka fab ndëpp teg ko ci boppam ak taaj namruus mooy ki jëkk rëy rëylu ci kaw suuf ba àgg ci woo nit ñi ci ñu di ko jàmm namruus dafa amoon ay dajjeetukat mooy ay euh, xamtukat ak i tombkat xamtukat ak ñuy xamtu ci wàllu tomb ak gisaane ak ñuy xamtu ci wàllu ki ilmu nujoom ñu wax ni ñoo ñi xamtukat yooyu ñoo ko wax ni ko am na xale buy bëgg a juddu fii ci sa dëkk bi ci at mii xale boobu de moo war a soppi dañu soppi diine waa suuf te sa sa alkane ak sa dañuk nguur ci loxoy xale boobu lay jaar li wax ni mun a jimono yi ak kurhaan yi ñoo ko wax am ñeneen ñu wax ni dañ koo jàng ci téere ambiyaaw yeneen jiitoon asodi yu wax na ne Namroos dafa gént ab biddiw bu fekk leer nañ ba far leeru jant beeg weer ba kenn gisutu genn leer ba jant beeg weer deseetuñu ak leer Namroos géntam googu mu tiit ci tiitaange lu tar daal woo njabarkat yi woo xamtukat yépp laaj leen di leen loolu lu muy tekki ñu ni ko loolu xale bu war a juddu la ci sa biir moomeel gi ci at nii xale boobu nag bu juddoo sa alkane ak sa alkane njaboot ci loxom yooyu lay bàyyi ko Namruus daal di joxe digal ci ni kon bépp xale bu fi juddu ci at mi nañ ko rey Muhammad ibnu Ishaq wax ni Namroos dafa dal di yónnee ñu wër bépp jigéen jiñ gis mu ëmb ci biir dëkk bi ñu jël ko indi mu wutal leen bërëb boo xam ne di leen fay tëj ba tax ku ci juddu bu xoolee buy góor ñu rey ko waaye mu ne yaay sulmaam Ibrahima mi suñ borom dogal ci moom mu wara feeñe ci moom yaayu suñu maam Ibrahim moom dafa doon gone ba tax na xamuñ ni dafa ëmb da ko war a mooy day xale moom jëm boppam xamul ëmb bi nit ñi duñ xam ci moom ab ëmb te feeñul ci biiram loolu ibnu Ishaq mu wax loolu ibnu Abbas ni yaayu Ibrahim bi mu ëmbee Ibrahim la njabarkat yi wax Namruus ni ko nguur si ñu la waxoon ni la sa alkande ci loxoom lay jaare ëmb nañu ko ci guddi gii Namruus foofee la tàmbulee di dégle bépp xale boobu jur ñu rey ko waaye yaayu Ibrahim bi mu demee ba war a am doom ba mat wi jàpp ko dafa daldi daw ngir ragal kenn di ko gis ba ñuy rey doomam yi mu dem ci genn dex gu wow ba mu amee doom ba noppi laf ko laxas ci aw morso teg ko ci ab bërëb dal di si wax borom këram boobu ni ko am na doom ma nga barab sàngam bàyyam ànd ak moom dem jële ko ci béréb boobu dem ci genn dex fexe ba wut fa am xunti dugal ko ci biir suturaal ko wut lu mel ni aw doj sakke ko ko ngir ndégment yi duñ mën a agsi ci moom yaayam daan fa ñëw di ko nàmpal di dégluwaat su di yu wax na ni Ibrahim foofu la nekk ci biir xonti moomu ba mu amee menn at képp am na màggoog ku am ñetti at dir bu gàtt la am euh, dëgër euh, ba mel melokaan woo xam ni ñiy rendi xale yi danañ ko euh, romb romb jàll ndax jàpp nañ ni Euh, mag kii mag la kon loolu mooy liñ wax ci mbirum njëlbeenu Ibrahim ak juddoom ak la ca aju Ibrahim yaroo ci suufus Baabil nan la fa yaroo ak yan taxawaay la amoon ci yàlla yi ñu daan jaamu loolu dinañ ko wax ci bunt bi boo defee nam génne ca xunti ma ak dellu gam delloo ci nit ña ak dàggoonte gam dàggoonte ak ñoom ci wàllu diine ak sànni gañ ko sànni ci safara wa ak la ca aju la lépp ñu di ko nett li ci bunt bi ñu dugg incha allah histoire dafay saxal ni jamono bi nga xam ni ci la Ibrahima doon dund ca Iraq la doonoon civilisation waa Babil civilisation ba fa tasaaroo muy pas-pasu jaamu ay xel kon ñu fexe ba xam ban pas-pas la waa baa bi la yoroon danañu dimbale ci ñu dégg aaye alxuraan yi aaye alxuraan yi di leeral pas-pas yi nit yi Ibrahim boo demee ci xisatul xadaara bu wal jurant benn mustasiq bu ñuy wax wal jurant dafa wax ne waa Baabila dañoo amoon ay yàlla yu bari dëkk bu ne rek dina am benn yàlla buñ fa teg ni mooy aar dëkk bi dëkk yu ndondowaan yi ci des yëpp yit fu ci ne dana am euh, dëkk yu mag yi dëkk bu mag bu ne dana am benn yàlla buñ fa teg ni mooy aar dëkk bi waaye dëkk yu ñu doon waan ñëpp ak quartier yi fu ci ne bu ñu fa demee danañ fa fekk benn yàlla bu ndaw bu ñu fa teg moom itam di ko jaamu di ko jaamu di def luñ mën ci sellal seen diggante yàlla jooju waaye nag yàlla yu doon daan yooyu yëpp nag teewul danañ reconnaître ni yàlla ju mag ji nekk ci Babel nag mooy bu mag bi mag a mag a mag noonu noonu la baree woon waaye mujj muy néew ndànk par ndànk ngir dañoo dem ba xamle ni yàlla yu ndaw yëpp ay photo lañ waaye bu mag bi dëgg-dëgg eh, mooy bee ca baa bi la ñu du ko tuddee mardak mardak mooy yàlla yu baa bi la mooy yàlla ji gën a mage ci yàlla yooyu ñu daan kenn ku ne fonkoon nga ab xiram teg ko ci sa dëkk di ko jaamu waaye mujj na néew ngir dañoo mujj gëm ne ay foto la waaye bu dëgg ba mooy bee ca baabi la loolu noonu la ko scientifique moo kooku di gëstu euh, di Wall Durant moom mu wax ni ba tey buur yooyu nag dañoo doon dañoo amoon yëg-yëg ci aajawoo lool njéggalu yàlla yooyu daan ko tabaxal ay tabax yu mag di indi ay bagages yu rafet immeuble di ko fa teg di indi aw ñam di indi sàngara di ko teg ci kanamu ci biir situation boobu yi nag nga xam ni mbooloom yàlla yàlla waan lañ kere woon di ko jaamu di samp ay xiram ngir di ko jaamu ci la suñ boroom tànn Ibrahima may ko ak njub won ko dëgg mu xam ci xelam mu jub ak wax yu ko suñu boroom wax yu ni yàlla kenn la ni yàlla mooy ki tiim mbindeef yépp mu dogu nag ci jubbanti nitam ñooñu ak sobe leen ci caaxaan yi ñuy dund lam jëkk def mooy laabiire leen tere leen liñ nekk moom laa alxuraan di tudd ci aaya biin wala xad aataynaa ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bi aalimin saala bi yu nettali jële ci boroom xam-xam yi yi ñu wax ni ibrahim bi mu màggee nekk ci biir xunti moomu dafa wax yaayam ni ko kan mooy sama borom yaayam ni ko man mu ni ko yow kuy sa borom mu ni ko sa baay mu ni ko kuy sama borom baay sama sama baay koy kan mooy borom mu ni ko Namroos mu ne ko Namrud kan mooy boromam yaay ji ne ko noppi noppi yaay ji dem ca borom kër ba te mooy bàyyi Ibrahim ni ko mbaa yëg nga ni ngóor si ñu doon wax ni mooy soppi diine diine suuf si sa doom ji la daat koy wax ni ko lii la wax bàyyam asara ñëw Ibrahima laaj ko mu ne ko yow baay kan mooy sama borom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kan mooy boromam mu ne ko man mu ne ko yow kan mooy sa borom mu ne ko Namroos mu ne ko Namroos kan mooy boromam ñu wax ne baayam daf ko pes ni ko noppi loolu yi la euh, saala bi yu indi ci xisasul ambiya ba ñuy tudde alxaraïs ba noppi nag dëgërale ko wax gis suñu borom wax ne wala xadaatee naa ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin noonu ibrahima wax ñaari way juróom leen génnee leen ma ñu génnee ko ca xunti ma yóbbu ko waaye wax nañu ni ba soow mu xool giléem yi ak nag yi ak jur gu gàtt gi ñuy jox si mu laaj bàyyam ñu ko lii la mu mun ko lii ay giléem lañ ak i nag ak jur mu ne mu daal ni mënta lii lay mënta ñàkk ñu am boroom borom bu leen bind laa wax de waxuma ki leen moom jënd leen waaye borom bu leen bind foofu la xalaate asamaan ak suuf daal di wax ni ki ma bind di ma wërsëgal di ma lele di ma màndal mooy sama borom boobu benn borom bu dul wax nañu ni baayam dafa daan yett ay xërëm bi mu jëlee Ibrahim ba nekk ak moom la tàmbali di liggéey ay xiram di ko jox Ibrahim ngir mu jaayi ko waaye Ibrahim bu masaan yóbbu xiram yooyu day woote ni ana mooy jënd lu koy lor du ko jariñ kenn du jënd ci moom bu demee ba mu lambu mu yóbbu xiram bi ca genn dex bu demee dóor bopp bi ni ko naanal da ngaa lamb rek naanal comme lamb ga ngir di ko reetaane ay nitam ak di leen yëjjat ci réer googu ñu nekkoon na nga doxe ba ayibal gi muy ayibal xiram yi siiw reetaan gi mu leen ci reetaan it siiw siiw ci ak eh, ay famille boppam njabootu boppam siiw it ci waa dëkk bi noonu la bi yu nettali Ibrahim woo baayam di woo baayam baayam la jëkka woo ci bàyyi jaamu xeram Ibrahim baayam daa bokk ci ñi jiite woon jaamu xiram yi bokk sax ci ñi yett xiram yi di ko jaay Ibrahim ci yëg-yëgam lii baayam di def jafe na ci moom metti na ci moom te bàyyi ma ko mooy ki gën a jege ci xolam mu gis ni bokk na ci war-waram mu jëkk ko laabira bala moo jàllale ak laabiram ci kenn mu gis ne bokk na ci war-waram mu moytandikuloo baayam mu jóg lay mujj ci ak kéefar waaye nag ci ban uslub lay jaar ci ban yoon lay jaar ngir wax ak baayam loolu ibrahim waxante na ak baayam ci waxin wu tegginu leeral ko lay xel yi nga xam ni mooy tekki ni lii muy jaamu muy xërëm yi amul benn njariñ moom la suñu borom di nettali ci alquran ni waskur fi kitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabia mu nu ci téere bi ndax siddiq la nabiu mu ko wax tuddal fàttalikul is xaala li abihi yaa abati li ma taabudu maa laa yasma wala yubsiru wala yuxni anka shay'a Ibrahim bi muy wax ak bàyyi mi ngi tàmbalee ci indi layu xel jox bàyyam layu xel lu tax ngay jàmm aw doj doj wi du dégg du gis amul kàttan ci mën laa jot ci aw indi la aw yiw mbaa mën laa teg aw ay continuer di waar baayam di ko woo ci ak dégg waaye lépp nag mu def ko ci ak teey ak mu ndànkal ak i teggin akub yar wunut baayam ni ko ab jaahil nga bu xamul dara jekki jékki rek ñu dal ci kaw ni ko ab jaahil nga ndax loolu bu ko defee day mel ni dafa doya dal baayam te bu boobaa lam doon jàllale du jàll waaye Ibrahima it melalul boppam ci xam-xam dëgg wane daa am xam-xam bu ndax loolu bu ko defee day mel ni eh, day feeñal ak kaweem ci kaw baayam te boobaa baayam mën na ko fañ ndaw waaye da ko xamal rek ne ko man de am na lu ma xam ci xam-xam bu ma suñ borom defal boo xam ni mayu la am na xam-xam bu ma bi la mayut kon boo toppee sama laajee rek danaa woon yoon wu wér mooy li suñ borom wax ci alquran yaa abati inni xad jaani min al ilmi ma lam yaatik fattabini ahdika siratan sawiya donc yow sama baay am naa ci xam-xam loo xam ne amoo ko kon topp ma ndax ma jubal la yow jub yaa abati li ma taabudu laa taabudu seytaan mu ne ko yow sama baay bul jaamu seytaana inna seytaana kaana lirrahmaani asiya wax seytaana dafa mooy yàlla mooykatu yàlla la yaa abati inni axaafu an yamassaka adaabu min ngi ko seytaane dafa mooy yàlla te it sab noon la te moo la dugal ci réer gii nga nekk te lii nga nekk de boo ci génnul ci mbugalum yàlla la jëm waaye lu ko bàyyam tontu ni ko ah dangaa du mooyu sama wan gannaaw jaamu xiram yi ba noppi di di ko bokkoo tere nañ nag wala ci ni ko nag lii nga nekk de boo ci deltuwul gannaaw danaa la jam léegi nag dama bëgg nga sori ma nga bàyyi ma ab diir xaw maa sori ba sama mer dal mooy araxibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya waaye ibrahim xupp googu ko bàyyam xupp it ak dàq gi ko bàyyam dàq it eh, taxul rek mu doxi lu dul ay teggin taxul mu wax ak moom wax ju ñagas dane ko rek salaamun aleyka salaamun aleyka mooy man de lu ñaaw lu bawoo ci man ñëw ci yow benn lore du bàyyi ko ci man du ci wax du ci jëf jëm si ci yow sama wàll li da ci mucc dinaa ñaanet sama borom mu jéggal la bañ laa mbugal ci li nga nekk ndax tamaloon na ma di ma teral di wuyu sama ñaan bu fekkee nag woo gii ma lay woo ci ak ngëm daf lay gêné daf lay lor danaa la beru yaag saw nit beru lii ngeen di jaamu muy xeeti yàlla yi ngir mën a ba jaamu yàlla moom képp te it eh, jaamu gi muy weddi ko jaamu mën naa cee bañ a sore jàpp naa ne du sànk samay jëf comme ni seen jëf yii di sànkoo ci jaamu gi ngeen di jaamu suñu yi noonu ni ma ko waxee ne ko dinaa la jéggalul sama borom it Ibrahima jéggalul na baayam boromam ni mu ko ko dalee woon am na fu mu wax ni wax firli abiya innahu kaana min ad-daalliin nga jégal sama baay ndax dafa réer waaye nag jégalu ko gépp nag mooy bam mu naagoogul ci ngëmu baayam waaye ba mu demee ba am lu ko leer ci ne du gëm te noonu suñu borom la dafa daal denc moom moom la alxuraan bi nett leen wa ma kaana istixfaaru ibrahima li abihi illa an mawidatin waadaha iya jégalu ibrahima kat jégalu baayam kat jubluwu ci dara lu dul ab daal bu mu ko daaloon la sa astaghfiru laka rabbi innahu kaana bi xafiya dem fee ni fi waxfir li abi innahu kaana min adh-dhaalimiin waaye nag ba mu demee ba am lu ko leer falamma tabayyana lahu annahu kon loolu mooy li dox ci diggante ibrahima ak baayam am na foo xam ne ay alxuraan boo xam dafa wax ne wa iz qaala ibrahimu li abiihi aazara atattaxidu asnaaman aaliha inni arayka wa qawmaka fi dalalin mubin lii moom dafay tegte la nit turu baayam aasara la aasara la baayam tudd waaye nag ñi doon nettali ay askan nag ba ci ibnu abbas ci la bokk ñu ñépp dañuy wax ni turu baayam taarix la ahlul kitaab it dañuy wax ni turu baayam taarix la moo tax ibnu jarir wax ni li wér daal mooy asara la tudd ndax moom la alxuraan tudd waaye nag mën naa amit mu am ñaari tur yoo xam yëpp alam lañ ci moom wala benn bi dee alam bi ci des di aw laqab loolu ibnu kasir nee euh, lu jub la insha allah boo demee ci saxiix buxaari yi nett na ci ab xadis jële ko ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonente bi nee na Ibrahima dina dajeeg baayam azara yowmal qiyaama mu yor kanam gu ñëkk kanam gi fagg Ibrahima dana koy dana wax baayam ni ko ndax néewu la néewu ma la woon bul moom mooy baayam ni ko tey jiidee moom boo ma digale duma la mooy Ibrahima ni sunu boroom daalul nga ma ne dooma gàcceel yom bis bi ñuy dekkal nit ñi te gisuma genn gàcce gu gën a gàcceewu sama baay nga di ko soril si yërmande waaye nee na bu boobaa ko cee tegal ni ko nag dafa araam ci ay yéefar noonu ibrahim wax baayam ak nitam ñooñu te mooy kaldaani yoone yi ni ko alxuraan nettali xaala li abihi wa qawmihi ma hadihi tamasilu allati antum laha akifun moom mel dafa laaj baayam ak yi nitam ne waaw tamas eh, stati yi ngeen sax rek di ko jaam lu mu loolu yoon laaj laaj boo xam ni da caa bëgg a leeral rek ñu gàtt ay xel lañ ñu dof lañ ndax ñoo war a tontu seen bopp lu mu waaye ñoom ñu beral sababu liñ li tax ñu li sabab ñu di ko jaamu ñu leeral ko ni ko dañoo fekk seen i bàyyi ñu di ko jaamu rek ñu di leen ci roy waaye wuñ lay budul boobu lay woowu ñu lay nag lay wu doye di la woo xam ni mboolem yàqkat yi moom la ñuy génne di ko lay sama baay ci lii laa ko fekkoon ci laa nekk te jamono bu ne damay wax ni alxuraan dafa am ñaari taxawaay ci ku fekk sa baay muy def nangam nga di ko ci roy nit kuy roy baayam alxuraan ñaari taxawaay la ci am benn taxawaay bi mooy bi alxuraan bañ te mooy jubluwoo ci dara lu dul farfarloo lu weesu ne sama bàyyi daal fekkoon naa ko muy def nangam kon danaa ko def boobu moom la ŋàññe yéefar yi inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qul awalaw jitukum qul awalaw jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum beneen taxawaay bi alxuraan am ci nit kuy topp ay baaye ki maam mooy taxawaay bi mu rafet rafetlu te mooy baay walla maam ju nekkoon ci ak ngëm yàlla ak jëf ju baax nga lu jëfam joojee di ko roy ci yoon woowee boobu suñu borom daf ko rafetlu wax ci benn aay walladina amanu wattabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim dhurriyatihim Ibrahim nag bi mu ñëwee dafa bëgg libéré nitam ñooñu ci jaamu gi ñu doon jaamu xiram yi ak leneen ca war a fekkaat ci ay lor yu bëgg leen a yóbbu ci dëgg gi nga xam ni moom la nit ku ne war taxaw di ko jéptaan ci kaw suuf te mooy jaamu yàlla te wéetal ko ci jaam moom la wax ak aw nitam leen afaraaytum ma kuntum taabuduuna antum wa abaaukum al aqdamuuna fa innahum aduwun liya illa rabbal alamin alladi xalaqani fa huwa yahdiin walladi huwa yutcimuni wa yasqiin wa ida maridtu fa huwa yasfiin walladi yumiituni summa yuxyiin walladi atmacu an yaxfira li xatiatii yowma addin mun leen ndax gis ngeen ni lii ngeen di jàmm yéen ak seen bàyyi jëkk yooyu de samay noon la man de uma dara dudul yàlla yàlla moom ma bind moo may jubal moo may lele moo may màndal su ma wéradee moo moo may dundal moo may rey moom laa am ci moom xeymam teefit mu jéggal ma sama bàkkaar ci bis bañ ma fay loolu mooy mooy ngëmu Ibrahim ngëm ngëmu ku ku wammatu jox boppam yàlla ngëmu ku jox cëram yépp yàlla ak ngëm la goo xam ni dafay dindi ci xol njàqare njàqare xol ak ngëm la goo xam ni dafay defal nit ki dalu xel akuk texe gëm mooy ngëm gi nga xam ni dafay musal xelum nit ki akub xolam ci muy topp ay caaxaan mooy ngëm gi nga xam ni dafay saxalal nit ki ni amul kenn ku koy jox wërsëg ku dul yàlla amul kenn ku koy faj ci tawat ku dul yàlla amul kenn ku koy dundal ku dul yàlla waaye amul kenn ku koy rey ku dul yàlla amul kenn kuy jégle ay bàkkaar ku dul yàlla amul kenn kuy jariñe mbaa muy lor ku dul yàlla alwaahidul qahaar ngëm gii mooy ngëmu ko sunu maam ibrahim alayhi salaam fa muy màbbe di dammutee xiram ya noonu bi mu waxanteeg ñoom ci lay xel lam ca mën a joxe lépp mu joxe ko ca dafa daal di jàpp nag ci xelam fas nii damm xelam yi nag te bañ cee bañ dara xelam yooyu nga xam ni euh, moom la aw nitam daan jaamu mu waat ci yàlla ne dina ko dammute dana ko toj kon ginnaaw bu mu jaareek ñoom ci yoonu lay ak wax ak jubbanti mu bëgg leen a won nag yoonu jëf woo xam ni dana leen ci feeñal la aw lay ba tey ci ni li ñuy jaamu amut njariñ amut lor te mënul leen a mënta mënta indil kenn lor ka koy lor du ko ka ñëw ngir di ko yàq si du ko mën a lor mu bëgg leen a won njàngaleem jëf ndax njàngaleem jëf te mooy wane ko fa am jeexit ju mën a jaxital yoo xam ne moo gën a mën a jaxital ay waaraate ak i xuppe noonu Ibrahim euh, di xaar rek benn occasion bu mën a am ngir bëgg-bëggam boobu mën ko wéer noonu la xaaree ba benn bisu it benn feet bu ñu daan def euh, nga xam ne at mu jot dañ ko daan feetu bàyyam woo ko ni ko Ibrahim tey de bisu feet la boo mënoon a génn ànd ak ñun bokk ak ñun feet gi xaj na danga am mbégteem xol ndax ni mën a gis daal dañuy wax nit ñi te mënoo am mbégtem xol studi yu dafa wax ni at mu ne dañ ci dañ amoon genn feet goo xam dañuy génn dafa fa buñ masaan di génn nag buñ masaan jóge ca feet ga dañuy def jawale ca xëram ya sujjootal ko daldi door dellu ca kër yi biñ demee nag ba toll ci war a génn bàyyam wax ko wax jii ne ko te nga war a génn ànd ak ñoom ndax suñu diine ji mën laa yéem Ibrahima ànd ak ñoom waaye ginnaaw bi mu gis ngànt ngànt loo xam dana tax mu mën a euh, wóotu wóote dafa xool ci biddiw yi euh, di wax ni man di jàng naa ci ni ma gisee taalix bi te mooy penkital biddiw bi mooy dama am tawat ju may waaj dal nit ñi it ba mu ko waxee ñu ragal mu di leen wàll mu bàyyi ko ni kon mën ngaa toog mu dëpp daal di dellu fa mu fa xëram ya nekk waaye booba lam plan lépp mooy fas leen yéenee màbb saxla bi wax ni Ibrahim dafa génn ànd ñoom ñëw ba ci yoon wi mu daanu mu jékki-jékki rek mel ni ko fakkatalu daanu daal di leen damaa tawat daal leen sama tànk day metti ñu daal ko fay bàyyi mu tëdd bañ demee ba woon ko gannaaw mu daal di woote wax ci kaw ni booba fekk ñi ñi néew doole ci nit ñi ñoo des gannaaw moom mu waat ni watallaahi la akiidanna asnaamakum ba'da an tuwallu mudbirin ba ñuy dem mu waat ni seen xërëm yi dinaa ko màbb bu ngeen ci xew-xew boobu ñu la sunu borom di nettalee bi mu nettalee xisa nooxin ba noppi teg ca ne wa inna min shi'atihi la ibrahima is rabbahu bi qalbin salim is xaala li abihi wa qawmihi maada tacbuduun ay ifkan aalihatan duna allahi turiduun fama dannukum bi rabbil alamin fa nadara nadratan fi nujum fa qaala inni saqim foofu la subaram ni nett leeni ibrahim ci kuréelu nooxin la bokk ndax moom dana indil borom boroomam xol bu set wecc ndax waxoon na baayam ak yi nitam ni lu ngeen di jaamu ndax ay fen ngeen jàppee ay yàlla di ko jaamu lu ngeen jortu ci yàlla mi borom mi nekk ni noonu lay def ci yéen daal di xool nit yi daal di wax ne dama tawat am na benn aaya boo xam suñu borom da cee nattali ne ba mu leen ne maa haadihi tamaasilu lati antum laha aakifoon da leen laaj ne waaw yéen xërëm yi ngeen sax di ko jaamu lu mu doon dañ ko ne wajadnaa aabaana laha abid ñu fekk suñu bari ko jaamu mun leen laxad kuntum antum wa aabaukum fi dalaalin mubiin yéen ak seen i bàyyi ci réer gu metti ngeen nekk ñu ne ko waaw aji'tinaa bil haqqi am anta mina laa'ibiin ndax da ngaa li ngay wax dangay dëgg ngay wax sa dëgg-dëgg ngay wax wala da ngay fox da ci ci dimaab di di di di suufeel suñu xërëm yi mun leen bal rabbukum rabbu samawati wal ardi alladi fatarahunna wa ana ala dalika min shaahidin wa tallaahi la akidanna asnaamakum ba'da an tuwallu mudbirin aaya boo xam ne la dal waaye ginnaaw ba mu waxante ñoom ci noonu ba noppi nag la dem ca yàlla ya booba ñu ngi mu ngi ñu ngi def benn xëykal benn béréb bu mag boo xam ne fa lañ def xërëm ya def benn xërëm bu mag bi mu jiitu ya ci des léegi def ak rang nekk ci pegg bi